décret encore ma dellu soit c'est c'est un décret qui date de 2022 alors que nous notre protocole d'accord a été signé depuis 2019 bu baax incohérence bi waa Sénégal état mënul joxe 2019 ba pare ñun ñu demaat andiwaat benn décret bi ñu signé en 2022 loolu c'est pas possible et en plus aussi ñun mënuñu ñëw fekk euh, li nga xamante ne mooy àll bi nii rek ne dañuy ñëw installé wu te ñoom seen décret bii nii alors xam nga fii forêt classée la woon de Thiès est-ce que am nañu autorisation wala boo am nañu loo xamante ne mooy wane ne ñoom am nañu effectivement classifica euh, déclassification forêt boobu noonu dama ne yooyu ay caaxaan la ñoom encore une fois de plus mooy ni ma koy faralee di wax mënuñoo fekk ay nit installé wu employé ay junniy junniy nit fii di xëy di fi daan seen doole waa Nouvelle Ville dañuy bëgg nax nit ñi parce que am nañu doole yor nañ seen xaalis ñu comploté ak ñi nga xamante ne ni ñu ngi woon fii ci gouvernement